mina seytaane rajimi bisimilahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur sant suñu la Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziar yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV nekk alalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool tey ji nag euh, di ajuma ji di ñeent fan ci weeru juin 2021 di bis bu màgg bis boo xam ne wax dëgg yàlla bu egsee xol yi dafay xaw a tooy ñëpp nag seen xel màcc jëm ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkoon ñetteelu xalifa Serigne Touba seblaat di kenn koo xam ne ci dëggoom mbaaxam akum njàmbaaram ak pëstéefam mbooleem koo xam ne rek nekk nga sax juddit laay wax xam nga seex Abdou Lahad liggéey bu rëy bi nga xam ne doon na ko liggéeyal yàlla bi mu doonee xilaafa Serigne Touba ndax bi naata nekk xilaafa Serigne Touba ku déggaloon magam yu baax yi nga xam ne moom la fi fekkoon muy sëñ mu Moustapha ak Serigne Fallou Cheikh Abdou Lahad njàmbaaram moo waral tey fii ñu taxaw nag muy buntu daaray Kaamil bokk ci kër yi nga xam ne macha allah bokk na ci kër yi gën a rëy ci àdduna ndax kër alxuraan wax dëgg yàlla mu ubbil ko baayam bu baax ba neef ko diggéeyal ko yàlla diggéeyal ko yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy liggéeyam Cheikh Abdou Lahad boo liggéey ci dëkk bi sell bi di Touba forage yi Cheikh Abdou Lahad liggéey na fi liggéey bu rëy gendarmerie Cheikh Abdou Lahad def na ko bépp loo xam ne sax mi ngi fi ba nëgën si ñi ngi wax naan vision Cheikh Abdou Lahad ca la nekkoon kon ak njàmbaaram 2021 bi nag ak 2020 bi jàll ku nekk xam na ni àddina si tëdde ak ni ni ni mu mel moo waral ñu wooteeku nii ndaxte li ma naan euh, jëfandigal mooy jëfu murit jëfandigal mooy li nga xam ne moo ñu war murit jëfandigal mooy li ko war moo waral nag saa su ne rek bu ko tedd ki waxee ñu ñëpp dañuy tënku ca wax ja daal di jëfandigal moo waral màggal gi daaw waree mel ni mu mel di ñaan ci yàlla yonent bi nag yàlla na fi yàlla jëlee mbas mi ba nga xam ne ñu delluwaat ci li ñu xamoon muy gisante màggal ko nan ko daan màggale di ñaanal bu baax a baax sëñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad yàlla guddal fanam lool lool lool te wéral li cëram di ñaanal ci njabootam gu jigéen ñi ki nga xam ne moo ci mag muy soxna May mu Cheikh Abdoul Ahad di ko ñaanal moom yàlla guddal fanam lool te wéral li cëram kon nag ñu dugg ci biir woon leen ziare yi nak la mbokki di yëpp ñëwee di ziare si ci màggal gi ma ànd sama cameraman Sane ñu dugg ci biir woon leen ko dellusiwaat ci jotaay bi ñu lay nuyu baax di la ziare fekk la fii ci nga génne daaree kaamil doon ziare Cheikh Abdoul sa diggante Cheikh Abdoul Ahad. waaw Cheikh Abdoul wax dëgg yàlla ah, xanaa diggante murid yëpp rek mooy doon jàmbaar doon royukaay ci fulla ci fayda ci dëggu ak mat lim doon sëkk liggéeyal murid yëpp nag ñu fi fekk ak génération yi ñëw yëpp liggéeyal na leen ndax daf def ci Touba loo xam ne kenn du ko laajte boo gëstoo rek gis ko sëñ Abdou Lahad daal mënuñu koo fay ah sëñ Touba nag muy waajuróom yàlla na taseeg moom te am ngërëmam te am ci ngërëmul yàlla loo xam ne dina kawe njortam di yokk ay leeram taas ñu ci barkeem taas ci mboolem njaboot jamono ji daa soppeeku nga dégg ku ne di wax ak dëggu rek ne ci liggéeyal Serigne Touba ndax ñun lool rek moo fi des ah, ñun taalibe murid sëñ tubaa defal nañu lépp ah, liñ man rek mooy nekk ci liggéeyam bi amul leneen loo xam ne desel nañ ko ko te loolu la sëñ loolu la sëñ Abdou wane woon rek daa futteeku woon rek di liggéeyal sëñ Tuubaa wan nañu yoon léegi nag kon nag ay ca loolu rek a fi des liggéeyal sëriñ tubaa soxna Maguette Dieng docteur Maguette Dieng laa tudd maa ngi fii yor benn clinique ci Euh, ndaw ñu ngi lay nuyu baay boo suma diggante ak Cheikh Abdou Lahad. Mm-hmm. mooy Serigne Touba rek Serigne Abdou Lahad yal na yàlla yokki leeram. doon na koo xamante ne nii lislaam li mu ko yoral fa jëm rek lañ koy xam jàmbaari Serigne Touba jàngoo kooku. moonu delloowaat ñun ñi ci ak nite moonu xamal itam nu ñuy bëgg sëriñ Touba moonu xamal nu ñuy liggéey la sëriñ Touba moonu xamal nu ñuy wormaale sëriñ Touba moonu xamal nu ñuy topp sëriñ Touba noo ngi ñaan suñu borom dolli leeram te jéggal ko te bis bi képp ku fi teew tey yàlla na nga am jéggal suñu borom tey boo fi bàyyee koy dem koo dajeel yàlla na nga am jéggal suñu borom noonu daal sant rek la def sëriñ Touba di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ñaan Cheikh Mountakha yàgg fi loolu te wér ak maam Thierno Mbacke. jërëjëf Baye ñoo ngi leen di ñaan suñu borom defal leen jàmm ak yëkkati ak sëñ Tuubaa. ñu di la ziar fekk la nga génn la maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax soxna si. li ma defal dama cee kontaan lool ndax suñu borom dafa dogal suñu Abdoulaat mi te maa defal loo xam ne mënuma ko koo fay ndax suñu borom dafa dogal ba mu wàccee liggéey damaa ñu fi fekk sama mag ju baax yu ñuy wax maam Diallo muy war ndox di ko maye boobu jamono Touba am fi ndox jafe na boobu benn teen bu mag moo fi nekk nekk buntu kër sëñ Fallou ak buntu kër sëñ Abdou Khadre ma xool ndaw si ñëw ci moom ba pare wan wan ko ma ne yàlla nañ suñu borom maye waat Touba di woote jàmm bu soobee yàlla muy ñëw damay jënd paan di root suñu borom dogal màggal sëñ Abdou Khadre ma jënd paan bi ma ñëwee ci laa commencé di root suñu borom dogal may root ba mooma booleeg waa daaray Kamil 89 ren jii mooy fanweeri at ak benn yàlla suñu borom dogal ba ñu dem ba loolu moo boole waak daaray kaamil ba ñu jox mu néeg biir daaray kaamil fi mu ne lépp lu xew Touba mu ñëw biir daaray kaamil laay dal fi ne mboolem luñ fi séddal fi mu nekk sama loxo yi la nekk kon sëñ Abdoulaye yàlla ma ko yàlla fayal moom njabootam ci barke Serigne Touba aw ma fayam aw ma njab fayu njaboot Serigne Touba di ñaanal sama sëriñ bu baax mi ndax bu ma ko sëñ sa euh, euh, bàyyi bu baax boobu moo tax sëñ Saliou defal ma loo xam ne sëtam bu baax moo tax di yàkkamte gee tax mënumaa leeral mais Muntaxa mi nga xam moo fi nekk sëñ ma maa ngi ñaan suñu borom di ko yeblaan ci màggangeem mbaaxam bi sëñ Muntaxa mi yàlla ko suñu borom def muy kéemaanam ci kaw suuf si waaw yal na ko suñu borom làq fa yàq yeggul sëñ Muntaxa lu mu bëgg a yal na ko suñu borom defal waaw ñoo ngi yalwaan suñu borom ci dara jey àjjuma ji dara jey eh, bisu waajuram bu tedd bii sëñ Muntaxa yal na ko suñu borom def muy kéemaan lam ci kaw suuf si yal na ko suñu borom làq fa yàq yeggul yéen maa ngi leen sant yéen moom may occasion bi moo mën ko def jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ naafihu bin fa kulla man talaqa ya man adani أسألك الجنة بالمختار لما يلوس بيس استتاري لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبت منك وكل علما لك خطابي موقنا بأني قل وحب فايس بالمن هديتني داية الهداة ولي قتم السادات لا ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وصل المطلوب يجوز كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دفت الكريم وخرايا طيب بجاي من سمعته المطيب يقود للمختار والآل مهاب سيابي خير اليقين تمام على الذي رافقني في سير صلاة باخ لي جود ميري اكتب لمن أخاس وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا في سنك النسين وصبل الماء ملك جميعهم نفوسهم بلا سين يدر والمساء يقبلا اغفر لكل من إلي مالا وعن يدي لا تزهزه مالا نفعتني فانفع بي العيالا يا من والأمير والأقيالا كن لي بما يفوق كل سني يا خير محن مدف بالمني مد سلاميك بخير ممها عن الأزاك الكديم